قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي مفلحا إلى الذين سلماني قبلوا نهد مدرتي كساك الكبل أن انتفت مدرتي والبلوى بفضل محل لي خاد الألواء لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكره كلي بالكتاب بلا معدات ولا إتاب jërëjëf sëñ Fall moom yow moom fi ne am loolu day sedd suñu xol ndax bu dul dara nu nu sëñ Fall albatiku daan mu doon jànkatu pasaayit kon yell na fu nu ko fekk dalal ko suñuy loxo sàkk ci moom aw ñaan waaye yell na itam dégg bu doon benn kalimat la wala benn bëyit ci xasida sëñ Tuubaa yi moo tax nu sàkk ko ci yow waaye suñu jëw sëñ Njaga Ture ak mbooleem daayira bi yëpp rek ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp ñu ngi jéggalu itam nun moom xaaruñu kuñ ci boole am nañ fulla gu toll ni ak fayda bu toll ni xaaruñu kuñ ci boole kuñ ci boole ñu bokk ci kuñ ci boole wu ñu bokk sëñ Tuubaa ñu noonu bu dul sëñ Tuubaa leneen ñoruñu suñu jëm yi nag wax dëgg yàlla mën nañ ñoo gis ci lu ne jàpp ñu daf topp mbir bañ def ni loolee ñu topp sax moom la ñu gëm na lu ci ne da nga koy jox wàcc waayam waaye ñun sëñ Tuubaa feesu suñu mooy sëñ Tuubaa feesu kon moo tax nu sàkku ci yow lii nu sàkku di sàkku wàcc itam ci suñu jëwriñ Alaaji Njaga Ture bu doon benn benn benn benn benn xise la ci sëñ Bay Jaxate ndax man bokk naa ci ñi nga xamante ni wóor na Alaaji Cheikh Mbacke mu sëñ bu ma ko gisee rek wala ma séen ko wala ma séen lu bokk ci moom sama xel ci sëñ Bay Jaxate rek maanaam ngir bëgg bu ko bëgg cofeel bu mu am ci moom am ci moom waaye dund bu mu koy dund benn benn benn xise bu ndaw rek nga may nu ko rek ñu jàngee wàcc ñun ñëpp rek incha allah li nga ko waxee rek yow sëriñ Sam yal na yàlla doon laa gën a saam mooy li ma sëriñ bi wax. amiin amiin amiin ko waxee rek sëñ Babacar moom ñun ñu joo xamee ni mel nañ ni waxandeew sëriñ Tuubaa la. mag bee ko dimbali. moo tax da nga xamoon ci bari. ba mas naa ñëw ci sëñ bi benn bis ni ko Mbàkke mbaa bi da ngaa yaakaar da ngaa baax. waaw hmm. ko yaakaar da ngaa gën. dana ko dangaa gën man laa daan wax sëriñ bi doy na ma doy loo naa ko duutu ma fab yéen yi ki ndox tumb ak loolu mooy kërëb kërëb sox xarit jiram rëbb rëbb li tax bëy bi téere tax am rab yi dee ñàkk téere tax am sàmm tax rab yi di bëy bi déewu ñàkk sàmm waral a yu ni jaañ jang te ma jàll la woon mhm. booba wax bi daa ñëw fekk bëy yu ñu yeew mu tëb tëb ci wetam ne ko bëy wala man nu ma mel man dama am mhm. eh, ko di ba ba nga xam mhm. ne jaar eh, bi rek rëbb bi fetal rëbb bi tax fetaluma kon am kilifa yi li am solo. boo amee am nga solo. boo amul amoo solo ku wéeru yëngu ko. waaw bi am kilifa. fi nekk nag. muy sëñ Mountakha ak yàgg ci wér. bàq ci wax ak suñu ceeb ummi ak suñu Abdou Mbacke. yëpp ak suñu Abdou Lahat suñu mu mel ni mu mel ni mu mel ni tudd ko sunu xalifa bu baax bi macha allah ñuy ñaan sa borom doon koo taxawu. te téeñal ko yenn moom àgg naag sa bopp. ndax boole dafa bëri ndax ci màggal gi rek jot nañ ci gëstu ay gëstu yu yaatu yoo xam ne jàngewaat nañ ci loo xamante ni ci toogaayam bi lépp da koy wan. waaye nga wax ko léegi ba yëg-yëg ngay am tey ndax tey man du ma ni du ma ni du ma ni ambassadeur yow yaa doon ambassadeur ci fi nga dëkk représenté Sëñ Tuubaa ñu ñi ñooy ambassadeur yi waaye yow tey romb nga ambassadeur tey boo xoolee man démb bi mu xoolee ministère de la santé daje ak comité bi nga xam ne ñoo ŋànk màggalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ginnaaw fukki fan ak juróom benn ne dañ doon xaar moom fukki fan ak juróom ngir ñu xool ba xam la nit ñi doon wax ni dana am muy dañ doon wax naan bu màggal Touba gi jàllee corona bi lawaat ci réew mi ñoom ñu daje ba démb ne ñoom bi màggal gi jàllee ba ci fukkeelu fan ak juróom-benn démb ñoom gisuñu benn kaawu corona ci lu bokk Touba wala mu takk tubaa wala mu wër Touba ban yëg-yëg ngay am ci loolu noonu bi ci desit mooy ñu dégg si Muntaxa ci mbaaxam nga ak yërmandeem nga ak bëgg murit ak fonk leen mu wax ni damaa woote ci circonstance bu doy waar ngeen ànd ak seen pas-pas seenu ngëm ak seenu yaakaar wuyu si ma kon wàcc ngeen nun ñii ñoo ci des kaddu yooyu noo koy déggee ak lan nga ñu ci mën a jàngale ñu taataan ci ñun ñëpp rek. waaw loolu day mel ni li ma waxoon léegi ba tey rek. Mm-hmm. ba tey yaa ngi ci li ma waxoon am kilifaay li am solo. boo ko amee am nga solo. boo ko solo. tuuyar wu yëngu. est-ce que. saa borom daa dogal benn jaam masa ànd ak sangam. Mm-hmm. ñu ne ci àll bi sang bi njëkk baag ne ko nun de man de damaa réer mu ne ko yow kay yaa réer. Mm-hmm. waaye nun ñu topp ci réer lu dul ndigal amul njëriñ mm-hmm. te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fa am njëriñ jox ko te toogul ndigalam boo bëggatee ay njëriñ ci sëriñ mm-hmm. ay njëriñ rek sëriñ bi li nu li ma yëg-yëg bi ma am mooy mooy nu ñu doolee laxasaya laxasaayu waat mm-hmm. jaayante waat loolu laa wax yaakaar naa ci daay di nan laxas waat jaayante waat xam ne daa ku am lu kenn amul da ngay fexe mel lu kenn melu mooy ñu jëlaat suñu jëmm yëg suñu alal suñu lépp mm-hmm. yëg-yëg boobu daal laa am mm-hmm. bañ cee dese dara rek sëñ Moussa am sëriñ Saal loolu la wax nee na sëñ Sëriñ Tuubaa ko jox mm-hmm. da nga koy jox gën a bëgg li nga gën a bëgg nga koy jox bu boole boobu loolu day kon yëg-yëg boobu a defaraat mooy nan doole jaayante waaw fas bi daal saa su na nekk suñu yitte li nga sëriñ bi sëñ sëñ sëñ Saam su nekk na nekk suñu yitte bu ko defee àddina na jël suñu àllaaxira jërëjëf santaat nañ la bu baax a baax wax dëgg yàlla du néew mu bari soññ la ci ñun waaye soññ la tamit ci téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy topp site bi nga xamante ni mooy Salam Vision Events doon suñu yëfi bopp waaye doon yëfi murid waaye doon yëfi askanu Sénégal ndax dara ñoruñu ci lu dul lenn lu war a feeñ lu ne wara bu war a war a mu war a fës wala jaam yàlla yi war koo dégg moo xam ci njàngale moo xam ci xel mu sell moo xam ci wax ju baax moo xam ci wax ju rafet ndax lu ci ne am na lu mu mën a def ci doomu aadama loolu mooy li ko tax a jóg kon yëg-yëg la woon mbégte la woon sànq. sëñ Abdoulaat waxoon na ne waxoon na ne buy xeexe ak aku yoo yetu muy xeexe gaynde day xeex ak moom kon sampam bi mooy dox ba léegi ñu sëriñ na ko amaan nii muy daayira bi balaa na ko loolu mun na ko ci ñàkk fàtte bi suñu sëriñ Abdoulaat la yàlla mën na sen borom doo daay xewal bi ko mu loolu yam ngërëm sëriñ Tuubaa sampoon daayira bi tudd ko sëriñ ko amaan mooy loolu yow dërëm ko la waaw yàgg moom nga xam naa nga jëlu yar rek daal ñuy soññaat rek fi jaaraat daa am gan ñu fi indi. incha allah monsieur te ñaari daayira yëpp suñu abdoulaye leen tudd. est-ce que loolu de tànkee lañ ci daal di jël. daay boobu suñuy njaboot dañ taa ne. est-ce que samay doom bopp samay jur. loolu de taw féex la. alxames taw tuuti ma gàmmu. bi topp ci gàmmu gi. incha allah kon nañ fi jaaraat. Mhm. te indi bagage yooyu. du ñu jaar de dañuy ñëw déedéet du ñu de. waaw yooyu nga fa bàyyi na nga ñëw tey dañuy def <laughs> آمين آمين ñu teew ko ñu bare bare bare bare. yàlla na law ba daj. sëñ Fall yow